asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi ñu ngi ndokkeel euh, kilifa yi nga xam ne ñoom la ñu fekk fii ci MK TV sëñ Bousso euh, ak sëñ Jili Bousso ak équipe technique bi yëpp waaye tabit ak euh, kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk jumaa ji di ziar sëñ Mountakha Bassirou Mbacké di ko ñaanal gudd fan ak wér yàlla na fi yàgg loolu te wér. Euh, di yëkkati kàddu yi nag ci turu euh, société de télévision du Sénégal bi nga xam ne ci atum 2017 la état du Sénégal taxawal euh, ngir mu mën a séddale ci xarala yu yees yi bépp signaux chaîne de télévision boo xam ne fii la bàyyeekoo ci réew mi waaye tamit ak ñaari chaîne de télévision yoo xamante ne ni. dañoo bàyyee ko ca bitim réew yàlla def euh, ñu leen di seetaan fii ci Sénégal bu ñu ko limee fanweeri chaîne de télévision euh, moom la TDS euh, ci xarala yu yees yi ak ci ndimbalu plateforme am di diffuser ci Sénégal yëpp nag région yëpp rawatina nag région de Diourbel nga xam ne fii am nañ fi centre émetteur boo xam ne bokk na ci centre émetteur yu yu jiitu ci TNT mu nekk centre émetteur bu Mbàkke euh, wax naa ko société de télévision du Sénégal euh, nekk na opérateur boo xam ne moom képp moom dong moom moo am sañ-sañu séddale li nga xam ne euh, moom mooy signaux chaîne de télévision yi ci Sénégal wërngal këpp ñu am nag mbégte ginnaaw bi màggal bi desee ay fan rek Euh, ñëwoon euh, joxe wàccaay màggal bi ki nga xam ne moom mooy kilifa gu tedd gi di sëñ Muntaxa Basiru Mbàkke euh, bi ñu noppee ci ziar ku tedd kooku am mbégte lool lool ñëw ziar fi nga xam ne moom mooy juma Tuuba waaye tam ñu fekk fi tamit li nga xamante ni tey bokk na ci lii tax Euh, Sénégal ah am way rafet fii ci biir dëkk bi waaye tamit ak bitim réew mu nekk suñu wàllu diine mu nekk it euh, tetal yi nga xamante ni buñ ko toppee ci ndimbalu yàlla mën nañu gën a am yaakaar ci li nga xamante nii moom mooy avenir Sénégal loolu moo tax dañuy euh, firndal feddalit suñu kóllëre bépp éditeur MK TV bokk ci Euh, ne ko tamit ñun suñu équipe technique yi euh, nekkuñu fi lenn lu dul rek pour accompagner initiative yi waaye tamit euh, mën leen gën a encadrer naam sax xam nañ ne équipe yu xarañ ñoo fi nekk kàddu yooyu lañ fi bëggoon rotal mu nekk kàddu jàppale waaye kàddu kontaante ci li nga xamante ni mooy responsabilité bi ñu fi fekk mu nekk di wasaare wàllu caada di wasaare wàllu diine waaye di wasaare wàllu yar ndax bu ñu waxee caada ak diine rek wax nañu yar donc mu nekk chaîne éducative chaîne religieuse religieuse boo xamante nii vraiment euh, ci turu euh, personnel terrestre bi yëpp ñi ngi am kontante ñëw visiter woon installation technique yi ñu gis fi nag ay xarala yu yees waaye tamit matériel yoo xamante nii macha allah euh, firndeel ne nañ ne fulla gi ngeen fullaal li nga xamante ni moom mooy information mais surtout information bu responsable euh, pour bañ a guddal euh, loolu lañ ci bëggoon dotal ci kàddu euh, di rafetlu bu baax tam bernde yi ak terte gi ñu fi fekk waaye it di ñaanal chaine de télévision bi yàlla boole ko ci chaîne de télévision yi gën a mag ci Sénégal ba yàlla def sax mu romb frontières yi dem ci bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatullah la ci barab bu tedd bii ci biir jumaa ji nga xam ne mooy barab bi nga xam ne mooy yore wàllu uh, xarala yu bees yi ci biir jumaa ji te muy foo am solo foo xam ne murid yu bari ci biir réew mi ak bitim réew dañ fi jële seen njàngale seenum njàng ci wàllu diine waaye di ci jëlee itam seen xam-xam ci dëkk bi ci li nga xam ne day bàyyeekoo ci sëriñ bi muy ay ndigal ak tere ak lépp loo xam ne dana mën a jariñ doomu aadama uh, mu tënku nag ci njàngaleem Serigne Touba mi tënku ci njàngaleem Serigne Touba waaye njàngaleem diine yi nga xam ne itam mooy mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir réew mi te daan yar nit ñi ci jikko yu rafet euh, doon seen boo xam ne it leneen lu dul loolu wax dëgg yàlla nekku ci nekkul ci leneen lu dul loolu yooyu rek yi mu wax rek ci la nekk mooy jàngaleem yonente bi alayhi salaatu wasalaam jaaree ko ci njàngalem Serigne Touba ak mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci réew mi te daan taxawu diine ji ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo culture bi nga xam ne moom la télévision bi di jàllale mu nekk télévision boo xam ne am na programme bu yaatu ci wàllu xam-xam am na ay danañ ci def ay waxtaan yu jëm ci diine ñi ngeen ko xamee koor gi bu weeru koor wi terew ba ba muy jeex fii ci jumaa ji dañ fi organiser ay ndogu waaye ndogu yooyu day am ay waxtaan yu koy jiitu waxtaan yooyu nag day séddalikoo ci ñetti xaaj ñaari at mu ne yan yi day nekk euh, ay thème yoo xam ne yu jamono lay doon yu yitteel nit ñi ñu di ci waxtaan lan mooy gis-gisu diine ak gis-gisu sëriñ Touba moo waxee gis-gisu Serigne Touba mooy gis-gisu mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñëpp ci mbir ci xew-xewu jamono boobu xew ngir recadrer Euh, nit ñi ci ñu dellu siwaat ci li nga xam ni moom lañ xamoon te mën koo jariñoo beneen bi ci des day nekk ay njàngale ci wàllu diine njàngale ci wàllu diine ci point yu wuute wuute yoo xam ne nit ñi dañ koy dund waxtu wu ne te léeg-léeg muy am lu leen ci réer ci doxinu diine lu mel ne commerce lu mel ne azaka lu mel ne nàmpalante ak yu mel noonu lu mel ne sey lu mel ne miraas lu mel ne fase lu mel ne nangam xeet yooyu yëpp ay itam yu am solo yoo xam ne dañ koy jàngale loolu ay leçon lay doon yoo xam ne dañ koy jàngale amit ay laaj ak i tontu nit ñi di laaj seen yitte ci wàllu diine ñu di leen tontu am na it yeneen émission yoo xam ne day day jàll day day dañ koy am yëpp jëm ci wàllu culture générale laaj ak tontu moomu am na yoo xam ne day continuer lu mel ne jàngu alquran mi jàngum xasida mi yeneen yi nga xam ne day xew ci yoon wi wala muy xew ci diini ji ci biir réew mi yooyu yëpp day dox ci télévision bi nekk na télévision boo xam ne nag am na wàll yoo xam ne xëy na yënguwul jëm ca lu mel ne ay politique kooku moom yënguwul jëm ci du ci du ci du ci wax du ci def ndax comme ni ngeen ko xamee ña ca nekk xëy na léeg-léeg ay réero yi am seen digganteeg yu mel noonu day tax dañuy préféré bàyyee leen ko te ñu nekk ci li nga xam ne rek ñëpp ñoo koy bokk euh, yeneen ak yeneen ak yeneen yu ni deme kon loolu mooy ci tënk mooy doxinu euh, seen bi mu nekk seen boo xam ne yàgg nañ ñoo dox ci mu mu bokk ci yi nga xam ne ñoom la réew mi di may sañ-sañub muy jàll ba fekk taalibe yi fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ñu mën koo jàpp ci barab yi nga xam ne ñu ngi fay jàpp télévision yu mag yépp jot nañ ci dox ay jéego yu bari toog nañ ci sax ak président de la république moo waxe ko nii ma la ko waxee moom ci boppam sax moom wax ne ma ci biir li biir euh, makkatal mukarrama masjidul haram am na seen bu mel nii ma madinatul munawwara ci barab jumaay yonent bi am na seen bu mel nii kon seen bu mel nii nekk na boo am njëriñ boo xam ne war nañ koo dooleel war nañ koo taxawu war nañ ko jàppale ba mu àgg fi yëpp di àgg loolu la ma tontu moom président de la république fii ma àndoon ak délégation boo xam ne ñoo ci toogoon ak moom boole woon nañu itam ak ñi nga xam ne ñoo ko war a dox euh, ci ci ci euh, récipi kii bi fréquence bi mu mën a génn ak yu mel noonu ñu ngi ci doon dox boole woon nañu fi ak Mamadou Abla Boun Ablaye Jonn ginnaaw bi itam dox na ba yëg ne ñëwul boole woon nañu fi ak Babacar Diagne ba Babacar Diagne sax xëy na. te am na nu mu njëkkoon tudd moo ñu ja euh, conseiller ñi ñu dellusiwaat ci tur bi ak yu mel noonu di dox ba mu agsi fii mu agsi léegi nag comme ñëw nga fii alhamdulilahi rabbil alamin ñëw nga ba teew gis euh, arab yi nag dañuy wax ne lay laysal xabaru kalaayaan liñ lay nettali ak li nga gisal sa bopp bokkuñu waaw li nga gisal sa bopp moom xam nga ne gis nga ko xam nga ne lii rek ko tax a jóg xam nga ne fii la nekk xam nga ne tool na fii li ñu lay nettali nag mën ngaa bañ a yaakaar mën ngaa bañ a xam fa tolluwaay ba dëgg-dëgg wala doxin wa dëgg-dëgg kon nag mi ngi nii nga xam ne lii rek moo ko tax a jóg jëmul it feneen julli juróom yi dañ koy def direct julli ayit yi dañ koy def direct màggal yi nga xam ne mooy am fii Touba ak yeneen événement yu mag yi nga xam ne day am Touba yëpp itam dañ koy def direct bari na ci yu mag yi nga xam ne xëy na ñooñu ëpp loole yoo xam ne événement yi am fii la ñuy jëlee signal bi julli korité wala tabaski ku ko seetaan ci Sénégal fii nga jëlee signal bi fii lañ jëlee signal bi nekkut it loo xam ne dañ ko def monopole téye ko nii waaye fi jamono toll xataayu encom encombrement ci wàllu média yu bari yeeg jëf ni muy demee tax nañu gis na ñun ci sunu ci sunu doxalin eh, yu mel noonu mën naa am couverture boo xam ne bu civilisé lay doon ba ci ouverture université bii rek dañuy boole. dañuy génne li ñu on ñu am ci doole ñi fi nekk ñëpp ci itam te nga xam ne am nañ jumtukaay yu ko yu yu yu xarala yu ko mate indi lañ am ci doole ñun ñëpp ñu ànd def benn benn dànk génne benn signal bu neutre ñenn jox ko loolu yaakaar naa bari na loo xam ne lu muy am loo xam ne euh, MK bi moo koy piloté jiite ko ànd ci nag ak professionnels yi nga xam ne xëy na ñoo fi nekk muy ñi nga xam ne ñoo fi nekkal télévision yu mag yi ci njiitul Samsudine ñu ngi koy sant bu baax nekkal fi RTS moom lu baree baree bare euh, taxawaay yu am solo daf koy def yu mel noonu moom sax ñaare bu dee kori wala tabaski wala yu mel noonu mooy faral di nekk ci biir jël sëriñ bi ak yu mel noonu yi ca ak yu liggéey gi yëpp ñu ñi ci des gën jël ay PC ak i nangam ku ne boo jëlee teg say PC mu mel ne yow yaa jël waaye fekk liggéey bi yëpp nekk la benn expérience boobu euh, est kii nañu tenté nañ ko ba réussir nañ ko ci yu bëree bëri dañ koy def ci mboolem événement yi nga xam ne mooy am ci dëkk bi kon euh, bari na loo xam ne ñi ngi koy liggéey maanaam egsiwul ci yéen ni mu war a egsi ci yéen wala xamewu leen ko woon noonu kon suñ bokkee toog ñu leeral leen tolluwaay ba ngeen xam ko day am day nekk lu am solo ñi ngi day dellu nag di la tàllal loxo tey am ci yaakaar bu baax a baax ci ne ñëw gi nga fi ñëw dana am lu mu ci dolli barki démb dalal nañ fii directeur général bu RTS euh, sëriñ Racine Talla moom it mu def nii nga def ñëw fi seet si liggéey bi gis ko rafetlu ko lool comme nii nga def nii yëkkati fi yu yu rafet ñu moo tax nag kon la ñu président de la république waxoon ñi ngi am yaakaar ci yenn ne loolu dana sottee ci seeni loxo ndax mbir nag loo ko soxla soxla soxla te loxo yam war a sottee egg seegul du du du mën a gën a sotti ak lu ñu ci am am yéene rek am nañu suñ borom nar a baaxee sottite la ñaar suñ borom nar a baaxee sottite la nag yal na ñu ngi sant bu di rafetlu teewaay bi di leen ñaanal itam ci kóolut yi nga xam ne di sant itam kilifa yu tedd yi nga àndal yi di leen jéggalu itam ci jataay bu yàgg bi di ñaan ñu teewaat fii ne gën a déwén te màggal gi ñuy soobu itam ak liggéey bi ñu ci séntu lépp. ñu amee ko nañ ko bëggee wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, ndax euh, li nga wax euh, ne président moo la ko wax jàpp nañ ne noonu la te itam incha allah dañ ko def suñu yitte maa ngi fii ak directeur technique bi waaye aussi chef département monitoring nga xam ne ñoom ñoo may conseiller ci wàllu technique ñu nekk ñu xarañ lool incha allah bu ñu jógee. Euh, naam ñun ñun ñooy bras technique u euh, ci lépp loo xamante ni aju na ci wàllu diffusion rawatina diffusion numérique terrestre euh, li ma bëgg wax foofu mooy ci wàllu institution li nga xam ne moom mooy CNRA ak ministère ñoom ñooy lëkkaloo daa di nangu laaj bi nga xam ne moom ngeen di laaj pour dugg TNT defee ñun bu ñu jotee li nga xamante ni moom mooy këyit yooyu incha allah dinañ ci def euh, li ci war ba ngeen dugg ci TNT bi loolu jël nañu tey engagement bi euh, te itam macha allah euh, yaakaar naa tamit ci wàll wi nga xam ne moom laa tudd sànq muy CNRA ak ministère ñoom tamit dinañ ci def seen wàll baral liggéey bi ndax sànq sëñ Bousso wax nga ko. Euh, li nga xam ne moom moo am tey mooy dëkk boo dem ci àdduna chaine yi mel nii dafa am boo demee ba Vatican euh, am na chaîne Vatican donc euh, sànq wax nga mag Makkatal Mukarram ak it yeneen bërëb yi tedd yi ne ci àdduna bi yëpp donc yéen da def loo xamante ni tey moo nekk seen devoir waaye tamit ngeen xam ne moom laa ki nga xam ne euh, tey moom moo téye micro bi <laughs> ma ko ciy gërëm mooy directeur ressources humaines euh, bu TDS di euh, Serigne Modou Mbacke Diba ki nga xamante ni moo nekk na la ci wàllu wale mooy Isma Seck moom mooy directeur des affaires am et financières ki ki toog noonu ci ci wetam muy mbay Fall moom mooy nekk directeur technique bu TDS Euh, jëmm ji nga xam ne euh, moom moo toog noonu di euh, Serigne Samba Ndiaye nga xam ne moom moo ñuy xelal ci lépp loo xamante ni wàllu monitoring la ak lépp luy aaju rek ci xool ndax chaîne yi nañu war a ñëwee ñu ngi ñuy ñëwee ak lan lañ ci war a def ngir nekkin we gën a ñoŋ di wax tamit ci wàllu technique ba tey ki nga xamante nii moom moo nekk nii di Serigne Pape Mamadou Sylla moom tamit euh, xam ngeen ne wàllu télévision euh, dafa laaj euh, énergie froid parce que boo waxee électricité courant même bu dee ñëw faw nga fagaru fagaru bi laaj na nga may ay groupe électrogène yu ñoŋ fagaru bi laaj na nga am ay on bi laaj na nga am bépp xarala boo xam ne day gàttandu li nga xam ne moom mooy coupure waaye tamit di ñoŋal li nga xam ne moom mooy xarala yi moom nag moom moo ko yor ci wàllu TDS euh, di wax tamit euh, ñi ngi am contentement euh, Serigne Antoine Biram Tine moom tamit ci délégation bi la bokk moom informaticien réseau la ndax wàllu télédiffusion dafa yaatu wàllu réseau la transmission ak it yeneen ni xarala yoo xam ne tamit bokk na ci li ñi namm Euh, chaîne MK TV bi di ko fësal ci wàllu éducation ñu xool xale itam nan la ñu di gën a accompagner euh, ci wàllu woowu te des tamit pare na pour gën a jàppale xale yi mu nekk ci wàllu stage perfectionnement bu ko defee bu ñu ñëwee stage bu ñu dellusee gën a xarañ loolu tamit loolu moo tax état bi teg ñu fi. Euh, di wax ba tey ci wàllu euh, ñi nga xam ne ñoo ñu gunge ah moom sax laa waroon njëkke ndax moom moo nag moom mooy représentant Thérèse fii ci euh, ci ci ci Diourbel région jurbel di sëñ Mamadou Lamine Thiam mi nga xam ne tam liggéeyam rafet na macha allah ak yéewen na ci loolu waaye tamit ànd na ceeg maanaam pas-pas bu am yitte ñu ngi koy gërëm bu baax ci liggéey bi moom mooy chef de centre. Euh, fi nga xam ne moom mooy centre émetteur bu Mbàkke mhm. donc sëñ Lamine euh, ki ci wetam euh, di Babacar Ngom moom bokk na ci ñi nga xam ne dañuy jàppale bu baax ci wàllu dem beeg dikk bi ndax TDS am na ñaar fukki centre émetteur ak juróom yoo xamante ne ni ñi ngi ci fukki régions yi ak ñeent ak ñeent fukki département yi ak juróom donc loolu dafa laaj dem ak dikk ñoom nag dañ ci jàppale bu baax soxna yi tamit ñi ngi fi soxna Tàkko madame Diouf moom tamit euh, ci wàllu direction ressources humaines la nekk euh, soxna bu Diagne moom tamit mi ngi ci direction des affaires administratives financière di toppatoo lépp lu aju ci wàllu finance waaye tamit soxna si nekk nii moom euh, community manager la maanaam communication digitale la nekk nekk service audiovisuel ca TDS di soxna Oumy Khayri sàmb ci wàllu LinkedIn Facebook bool ñu fa séenee rek moom la <laughs> ak itam sëñ Daawda da Sarr anamu Daawda moom tamit lépp lu aju ci wàllu innovation stratégie digitale xam ngeen xarala yu yees yi dafa laaj xarañ daf ñu ci jàppale bu baax ak euh, sëñ Ngor Diouf mi nga xam ne tey moom moo yor aussi euh, li nga xam ne mooy direct bi euh, tey dafa mel ni ñaari direct la xam naa fi mu toll nii moom MKTV ak TDS ñi ngi koy gis fu nekk <laughs> waaye itam di wax sëñ Alsane Diop nga xam ne moom tamit dafa nekk ci service audiovisuel euh, nekk caméraman réalisateur moom tamit macha allah euh, liggéey bi rafet na euh, lii tey moom mooy équipe bi ñi ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp wax dëgg yàlla ci terte bi ak i tamit yitte yi ak i tamit den waxtam di leen firndeel rek macha allah TDS état bi daf ko fi teg ndaw état bi la ci wàllu fësal Euh, bépp liggéey bu chaîne de télévision yi nekk Sénégal di def ñu gërëm leen sant jëf